te moo di asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu gannaaw nu yóbbu sell boobu dama amul jaaxle di la ko won yow mi may déglu di la ko won di ko won tam képp kuy boroomam xel mu rafet ci diine ji ci biir Sénégal mooy tey jii maa ngi doon déglu démb it maa ngi doon déglu benn bu ci nekk dama doon déglu kenn ku bokk ci xam-xami waa ci bokk ci boroom xam-xami waa waa Sénégal yaakaar naa it ci jeunesse bi ci ndaw yi wala bokk xëy na duñ ko sori ñaari waxtaan kenn ku nekk waxtaan wenn wi tey laa ko déglu wenn wi démb ak bëkk démb ñaari waxtaan yi nag dañoo bokk lu ñuy def te wuute fu ñu jëm wenn wuute na nag dafa jóg ngir karet ak xeex menn mbooloo mu mbokk ci mbooloom jullit ñi ci Sénégal ñu ma déglu tey ku bokk ci xalali Sénégal ku nu am yaakaar ci moom di ko ñaanal di ko ñaanal yàlla dolli ko xam-xam te rafetal xam-xamam te gindi ci ay loxoom jullit yu bari ak sax jaam yàlla yu bari mu waxtaan tey jii may door a dégg man waxtaan wu ci réseaux sociaux yi waxtaan wi du tey tey laa ko dégg laa bëgg a wax waaye waxtaan wi yàgg na waxtaan wi mi nga aju woon ci tasawuf wane na ay bon bon yu bare baree baree bari ci tasawuf ma koy déglu muy wax ay bon bon di lim ba boo ko déggee tasawuf moom boo sàgganee danga koy daal suur këll këll këll dootoo waxati dara lu ci jëm ma déglu ko sama xel tam dem ci ki ma doon déglu démb moom it mu dal ci salafiya moomitam wax na ci ay wax yu bare bari yoo xam ne boo ko dégloo daal mbooloo mi ñuy tudde ak salafiya ci biir Sénégal moom boo dégloo waxtaanam woowee dootoo waxati ci ñoom dara dara dara dara lu dul fas yéene génn ci ñoom mu bi ma koy déglu maa ngi woon ci wetu sama sama benn doom bu ndaw mi ngi woon ci sama wet mu dégloo ba àggal ma ne ko dégg nga kii li mu wax lépp ci tasawuf ci ay bon bona ah? mu ne ma waaw waaw ma ko li mu wax nii ma lay bëgg a misaal la mu ni ma xaam ma ne ko ku ñëwoon Sénégal ma ne ko xam nga senegal ñi fi ëpp ay jullit lañu mu ni ma waaw mane ko mu ñëw Sénégal daal di dem ca bistron ba xool ña fa nekk di naan sàngara ñi ci ëpp di ay jullit mu jóge fa dem ci jigéen ñi nga xam ne ay gànc lañu dañuy jaay seen bopp dañoo yor kartu cagatu di caga di njaaloo di dunde mu gis fa ay jigéen ñu bari ñuy jaay seen bopp di njaaloo jóge fa dem ci ay grand place yoo xam ne ña fa nekk daal ay nit ñu sàggan lañu ñoo xam ne duñ dem kati jàkk fonk ñu julli fonk ñu mu ngoog diine ji xamuñ ci dara toppatawuñ ci dara ñoom daal dem yeeg foo kartak yooyu rek mooy seen yitte jóge fa dem ca barab bi nga xam ne fa la yi nekk te fu mu fa dem rek xam nga ne dana fekk ay jullit ñu bari mu gis ñu bare bare ñu agressé ay nit di nangu seeni alal di rey di laggal mu ngoog bi mu gisee yooyu yëpp mu jóge fa dem ci barab yi nga xam ne na ti yen yenn ti bi yoo xam ne ay nit ñuy triande di lekk xaalis nit ci du dëgg ak ci ay nax ñoo fa bari lool te loolu ku ci bëgg am ay misaal yu bari rek dangay ngay déglu émission boobu yi ñuy wax euh, xalaas bi bu nga dégg njeexum ku ñu triande nax ko nax yu rëy rëy ma ne ko nag sunu waajooju bi mu wëree ci biir Sénégal ba dem na ca bistro ba dem na ca cagatukat ya dem na ca grand place ba nga xam ne bi ñun duñ dem kati jàkk luñu luñ julli fonk ñu ko jógee na fa dem ci ñi nga xam ne ñi eh, eh, ñooy ñooy yi ak ak ak trian yi bi mu fu mu dem ay jullit dafa ëpp mu daal di jóg nag daal di ne gis ngeen l'islam lislaam daal moom daal naan sàngara cagatu rey nit jël alalam walla nga nax ko triande ko ñàkk a fonk julli ñàkk a fonk jàkk lii daal moom mooy lislaam ndaxte kat man musulman yi ma gis lii la ñuy def mu ngoog man dem naa wër naa waaye man lii laa gis ma ko xam nga kooku li mu wax dëgg la waaye bu ko askanee ci islam ndax jullit ñëpp noonu lañu ñu mel mu ni ma déedéet ma ne ko loolu mooy misaalum waxtaan wi ma dégg te ma aju ci tasawuf tasawuf dafa bari ay mbooloo yu ci bokk yu wax ay njaaxum ak di ko def waaye nag taxut ñu mën a wax ne képp kuy ab suufi rekk nii nga mel nii yii nga fas te yii nga gëm ci yii nga mel ma ne ko waaye nag senegal gépp moom nekkuñu di naan sàngara ak di agressé ak di cagatu ne ko noonu daal laa la mën a misaale waxtaan wi te nag waxtaanu woowu ci tasawuf mooy waxtaan bu ma déglu woon démb ci salafiya rek benn la kif-kif wala bokk sudul benn kif-kif itam nuroo nañu ma seetlu nag ñi koy waxtaan ñoom ñëpp ñuy ay sénégalais mu ngoog ñi koy waxtaan ñoom ñëpp ñuy ay Sénégalais di ay ndaw di ay boroomi xam-xam réew mi soxla leen diine ji soxla leen ma lu ma metti lool ci ñaari mbooloo yoo xam ne wala sax mën na ay mbooloo yu bari yoo xam ne ñoom de ñoo bokk lu ñu war a bëgg te mooy taxawal baatu la ilaha illa allahu muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bu dee suufiya man da damay seere ne sunu maam yi liñ doon liggéey démb ak bëkk démb moo di jàngale diine jàngale teete nit ñi ci yoonu saat masaxe man day ñi ma dajeel ci ñoom dund ak ñoom loolu laa xam ci ñoom te loolu laa mën a seer loolu laa gis te it damaa jàpp Euh, lu bëree bëri li nga xam ne moo am ci diine ji lépp sax yàlla nga ko jaarale ci ñoom ñooñi kon nag ñooñu nga xam ne loolu moo doon seen bis muy suufi yi ni démb salaf yi ni itam moo xam tey la moo xam biig waaye leen tax a jóg weesuwul loolu ñu am nag ay doom wala ay sët sët yi ak doom ya waroon a mën a daje te waxtaan te seet fenn fu ne la fa jag ñu jël ko boole la jag feneen daa bi ci gën a dooleel diine ji gën a dimbali nit ñi jàngalaat leen seen diine ba dara ñu def loolu ñu doon ay mbooloo yu tasaaroo ñii di xasante ñii di gorante ay yeel ñii di sabante ndëm man daal loolu metti ma lool lool lool amuñ ko muñ mënuma ko muñ ma jël sama portable dinaa yëkkati leetar bi jëmale ko ci ñooñi di leen xamal ni euh, réew mi soxna soxla na xam-xam bi ngeen yor mu ngoog réew mi soxla na ko ay jullit dañoo ne ci biir senegal yoo xam ne bëgg nañoo jaar ci siraatal mustaqim te itam na ji avancé itteel na leen te ñor na leen te ñu ngi ko cee xalaat guddeeg bëccëg ñii di ay góor ñii di ay jigéen ñii di ay mag ñii di ay ndaw te ku dem lee ñooñu feeñu ci réseaux sociaux yi waaye ñu ngi déglu te soxla nañu ku leen jàngal te gindi leen diina ji itam tumuranke na lool soxla na ku ko taxaw kon nag yéen ñi nga xam ne ay ndaw ngeen di ay boroomi xam-xam ngeen séddalikoo ay cër ay mbooloo ñee jaar fee di ay salafi di dal ci kaw suufi suufi yi di jaar fee di daw di dal ci kaw salafi mu ngoog man day lii daal metti na ma lool te xam ngeen ne wuute naag li borom asamaan ak suuf santaane xam ngeen ne sa borom yàlla li mu nu sant ci alquran moo di innamal muminuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum moo di waatasimu bi xablillahi jamian wala tafarraqu man day bu ma dégloo waxtaan wi ba àggal ñaari waxtaan yi ba àggal sama xol bi jeex tàkk fees dal ak naqar xaw ma lu may def sama ndoom si ne woon ci sama wet dama ko ne moo jaa ndax mënuñu woon a fexe ba woote woote bu mel nii may bëgg a wax ma tudd ko ki waxtaan ci suufiya muy ustaaz nangam tudd ko ki waxtaan ci salafiya walla wahabiya muy imam nangam ma ne ko ustaaz nangam moomee ak imaam nangam ma dolli ca beneenub ustaaz boo xam ne suufi la ne ko ak kan moo te mu tuddal ma beneen ustaaz boo xam ne salafi la ma ne ko ñoom ñeent ñii buñ daje woon te jéem a waxtaan te ñoom ñëpp kenn ku nekk fas yéene la nekk ci sa ëtt te muy lu dëppoog li yàlla wax akub yonentam sallallahu alayhi wa sallam nga génne ko keneen tam la nekk ci ëttam te li yàlla wax ako yonentam mooy mu génne ko nda loolu boog ñoo ko bokkle xam naa ne moo suufi ak salafiya tiijaan ak murit ak xaadir ak ak ak ak ibad rahman ak ki bokk ci daarul istiqaama ak ki bokk ci falaax ak ñoom ñëpp xanaa mos ñoo bokk d'accord ci ne yàlla rek kay sunu buur ñoom ñëpp ñoo bokk d'accord ci ne sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàllaa ko yónni te lu mu wax dëgg la ñoom ñëpp tam duñu man lu may bokk d'accord ci ne lépp lu wuuteeg li sayyidina muhammad andi loole loole wérut te kenn waru caa wéy loolu moom mu cee ñàkk a d'accord ma ne ko nag kon léegi su fekkoon ne borom waxtaan wii di xas ye ak borom waxtaan wee di xas salafiya ak ñeneen ñaar mu tudd ko ñeneen ñaar dama ko tudd diw tudd ko diw tudd ko diw tudd ko diw ne ko ñii bu ñu daje woon seen ëtt yi kenn ku nekk la nekk ci foofu ëtt te dëppoog alquran sunna nga indi ko ngeen da dajaloo te la nga xam ne lii ma nga ca seen i ëtt te dëppwut ak alxalo suñu li ko teg fële dimbalante boole seeni doole ndax ñu mën a am aw yoon woo xam ne daañu ci jaare doon benn ndax diine ji jëriñ ci gën cee amee doole jullit ñi ñi seen diine ñor ñu fu ñu ko jànge fu wóor a wóor bu ko defee tojante bopp gi ak ak ak ak ak karetante ci ak gorante ay siis gorante ay ay ay tànk loolu mu dañ ndax yàlla sunu mbooloo mi gën a am doole fi mu nekk nii jullit ñi Sénégal soxla nañu am doole soxla nañu bennoo te tasaaroo gi itam ak xasante gi day da da day yàq bennoo gi te loolu day tax nu gën a néew doole li alquran doon wax wala tanaaza'u fa tafshalu wa tadhaba riihukum sama borom yàlla nee na bu leen xëccoo ci jamonoy guerre moo ko tax a jóg waaye al abratu bi umumi lafdi laa bi xusuusi sabab yàlla nee na ci alquran bu leen xëccoo laa tanaaza'u bu leen xëccoo bu leen werante fa tafsalu kon da ngeen di échec wa tadhaba riihukum te kon seen doole day dem mbokki jullit yi mboolem jeunes yi nekk Sénégal tey ay euh, salafit jeunes yi nekk senegal di ay tiijaan ak jeunes yi nekk Sénégal di ay Murit jeunes yi nekk Sénégal di ay Xaadir masalan jeunes yooyu yëpp buñ dajaloo woon ci ab barab ci ab dat ci ab barab boo xam ne kenn ku nekk la wuutale ak sa meneen moroomum jeune da nga koy summi def ko sa poos da nga koy bàyyi sa kër bu dee euh, da ngaa ci suufiya tiijaan nga muritam xaadir wala leneen nga bàyyi tiijaan nga murit nga xaadir nga def ko ci poos bi ndax tiijaan bi bu fekkee ne bi ak tiijaanam defu ko ci poosam du mën a wax ak murit bi di murit bi itam ak muritam bu ko deful ci poosam du mën a wax ak tiijaan bi di bu ko defee eh, eh, falaax bi ak ibaadu rahmaan bi kenn ku nekk la xam ne lii moo couleur bata tax nga nekkub falaax wala moo la couleur ba tax nga nekkub ibad rahman wala moo la couleur ba tax nga nekk tijaan wala mur couleur yooyu yu ndaw dawaan yooyu ñu dindi ko def ko ci poos yi jëmm yi daje ñoom ñëpp am na benn baat bu ñu bokk mooy la ilaha illa allahu muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñu daje waxtaane ko def ko muy seen base def ko muy seen condition principale bu nga xam kenn du ko génn ñu waxtaane nu ñu boolee mbooleem potentialité yi nga xam ne moo am ci jeunesse sénégalaise te lee tasaaroo lee jaar ci murit ga lee jaar ci tijaan ga lee jaar ci ibaadu rahmaan lee jaar ci fulaax ga ci jeunesse bi potentialité yooyu yëpp ñu dajale ko te loolu su ma ko waxee maa ngi jublu mbooleem jeunesse sénégalais ñoom ñëpp ñu daje ci benn barab daje ci benn barab ci benn bis waxtaane fa lu mën a jëmale kanam diine ji waxtaane fa lu benn la jullit ñi bu ñuy waxtaan ñu jël principe yi bi mooy lan mooy lépp loo xam ne sa borom yàlla da koo santaane lépp loo xam ne sayduna muhammad da koo indi sallallahu alayhi wa te loola mu sax aw saxin woo xam ne sikki sàkka munu caa am la muy firi it mu firi ko firiir woo xam ne sikki sàkk munu caa am ñoo xam ne loola wuute waru caa am wuute waru caa am mukk amul benn mbooloo wala benn tariqa bu am dooley Seydina Muhammad wax nga teg ca baat sallallahu alayhi wa sallam kon seen njulit daal di yàqu kon boog lépp loo xam ne dafa sax ci alquran lépp loo xam ne sax na ci eh, li Seydina Muhammad wax mbaa li mu jëf sallallahu alayhi wa sallam aw saxin boo xam ne sikki sàkk amu ci loola nu bokk d'accord ci lii moom daa war a taxaw la nga xam na lii nag moom ay détails la yoo xam ne yi xëy na saxin wa ci sunna mu nga man mën naa jamtalu li jamtalulee wala déggin wa firiwin wa mën naa jamtalu li jamtalulee ci alquran mbaa ci sunna loola bu fekkee mën nañ caa waxtaan ba d'accord te nu d'accord te bunte munta waxtaan ba d'accord te kon ñu baalante ca ñu baalante ca te lanu bokk d'accord moom ñu dimbalante ci xanaa lii te am man de lii ñi ma wax fii ci ay ustaaz yaakaar naa suñ déggee seen sant yooyu dañu xam seen bopp ñu wootente maa ngi leen koy ñaan ngir yàlla ñu yërëm jullit ñi ci biir Sénégal te bëgg lool xam-xam bi ñu yor soxla ko ñu jàngale diine ji te bàyyi xasante bi te bàyyi waxante yu ñaaw yi ñu ñëpp ñoom ñëpp ñu ànd boole seeni potentialité boole seeni doole ak seeni man-man ak seen xam-xam jàngale diini islam bi jullit ci Sénégal dañoo soxla ku leen ko jàngal jullit ñi dañoo soxla ku leen ini def leen ñu nekk benn te itam diine ji dafa soxla doole te doole jàngi ci réew mi doole l'islam mi ngi ci jeunesse bi ci Sénégal bu ko defee ñoom ñëpp ñu ànd doon benn dimbalante ci li ñu bokk d'accord te li ñu wuute ñu baalante ci te la wuute rek condition bi mooy bu wuute mukk ci loo xam ne lii am na texte boo xam ne sabata subutan qat'iyan wa dalla dilalatan qat'iyatan loolu lu mu am kenn ku nekk ci ñun nangoo wàcc kenn ku nekk ci ñun nangoo wàcc fekk fi aaya alquran bu sax xadis yonent bi sallallahu alayhi bu sax te la muy tegtal mu koy tegtal aw tegtalin bu wér woo xam ne munta am taawil loola ku wuute woon ak loola nga ragal yàlla te xam ne loolu ëpp naa deewaale ak koo mën a koo mën a àndal nga fekk si loola wàcc ñu nu bokk daje ci daayira boobu daayira li sax ci alquran sax ci waxi sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak jëfam ci aw saxin woo xam ne tey tegtale masala tegtale win woo xam ne mënta am sikki sàkk loolu moom na fexe ba duñ ca wute détails yi nag ñu baalante ci waat naa ci yàlla ne lii buñ ko xooloon xool gu sérieux gu dëggu ci nun kenn ku nekk ci nun fas yéene dara bañ koo tax a jóg lu dul dëggu ak nekk ci dëgg ak wax dëgg ak def dëgg bañ am orgueil bañ a am ak rëy ci buñ ko nee dëgg mu nangoo wàcc fekk si ko fekk si dëgg loolu bu nekkee ci nun daanu mën a ànd ànd gi nun ànd cent pour cent bokk le xalaat ci lépp munta nekk te nekkul lu nécessaire te musta nekkit musta nekkit saxaaba yi dañ daan am ay wuute ci ay déggin man na maa jël misaal keroog ba ñu xeexee xeexu ahzab ba xeex ba jeex ba jullit ñi yaakaar na yi fii dal na ndigal daal ñëw bàyyi ko kaw asamaan saydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne bu kenn jullee takkusaan lu dul ca yahud ñaari déggin dafa am ndax ñëpp ñoo ba takk daal di fas wuti kër yahud ya ca madina ñenn ñi dañoo dégg ne loolu li muy tekki mooy balaat balaa takkusaan nañ fa àgg waaye nak takkusaan fu mu la jotee na nga julli waaye nag takkusaan ba na nga fexe ba defal li nga mën lépp pour mu jotee ci kër yahudi ñeneen ñi ne déet nun kay bu takkusaan jotee du ñu julli mukk ndax ginnaaw yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam bu kenn jullee takkusaan lu dul ca kër yahud ya kon kay nun bu geedoon jotit duñ julli mukk takkusaan te danoo àgg foofu ñenn ñi ba ju ba takkusaan jotee mu fekk ñeneen ci yoon wi ñenn ñi dañoo julli fas yéene gaaw a àgg ca kër yahud ba ndax loolu la yonent bi santaane loolu la jublu ñenn ñi ne ñoom du ñu julli te du la ñu àgg foofu ndax loolu la texte bi wane waaye taxul saxaaba ya tamante ci ndëm taxut ñu wuute ca wuute nañ ci kay taxut ñu xeex ca taxut ñu bañante ca taxut ñu tamante ci ndëm beneen bi ci des moo di sax na ci téere sunna yi ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana génn ci weeru koor tukki ànd ci ñoom dog ñenn ñi ci ñoom ànd ak taxul ñi woor di wax ña dara waaye loolu nag day fekk muy ay masala yoo xam ne déggin wa nangu na lii nangu na lee bépp masala boo xam ne mi ngi ci diina ji te déggin wa nangu na te waat naa ci yàlla ne bu ngeen seggoon diina ji seggin mu mel noonu lee ngeen ànd lee ngeen ànd bu ngeen ci dindi woon ak anaan anaa mana man rek maan ne ci dëgg ku àndul ak man waxoo dëgg su ngeen ci dindi woon loolu te boroom xam-xam yu maandu yu jub yi jiitu génn seen xam-xam te xubbul islaax rek na ci xol yi bëgg a defar ak bëgg a jubal rek na ci xol yi far foraqaaw yépp nekk ci seen xool ak seen yéene ñu fas yéene daal lépp lu yàlla wax akub yonentam sallallahu alayhi wa sallam te waxin wa di am waxin woo xam ne sikki sàkk munu cee am werante munu cee am te déggin wa loola moom kenn bañ ko jàdd loo xam ne lii nag moom déggin wa daan nangu ñaari déggin wala yu demee noonu ñu xam ne loolu noonu la ko islam tere nu nu baalante ci buñ mënta ànd te du tee nu ànd ca lanu déggoo suñu dana mën a doon benn daanu mën a bàyyi suñu werante bu bari wi ak suñu xastante bu bari wi te liggéeyal diine ji mbokki diwit yi lekk-lekk liggéeyal ab kuréel dana nuroog liggéeyal diine waaye liggéeyal ay kuréel ba tax nga sànq sa diine ëpp naa def man day am naa xol bu naqari man day am naa jaaxle man maa ngi woo ñi nga xam ne daanaka tudd naa seen suba ba noppi te xam nañ ko maa ngi leen di dóor parce que yàlla nañ jéem a te téléphone te jéem a joxante rendez-vous daje te waxtaan waxtaanu mel nii ci base yi ma joxe su fekkee base yi dafa baaxut bu ngeen xoolee da ngeen gis base base yu baax ndax yéen ay borom yu xam-xam ngeen ay borom yu xel ngeen ay yu baax yu ngeen mën a waxtaane ba defar soow mi dugge ko marché bi yu baax yu ngeen mën waxtaane ba taqalikoo gu bari gii jullit ñi nekk ci biir réew mi mu mën a wàññiku lu nekk ci suufiya loo xam ne daa dëppawut ak li yàlla wax ko bu yontam ni sentu ko teg fee te dëgg lu nekk ci euh, xaw ma waxaa bi loo xam ak salafiya loo xam ne lii dëppawut ak li yàlla wax ko bu yontam ni di ko teg fee loo ci xam ne lii nag ñii dañoo jàpp ne dëppoo ne ñii jàpp ne dëppoo ñu munaqasa ko munaqasa ñu discuter ko discussion bu teg ci kaw ay règle ay règle scientifique ci xam-xamu diine yu wóor yoo xam ne day tàqale diggante loo xam ne dafa sax saxu xat'i ak lu sax saxu zanni te loolu am na ci nusuus nusuusi sunna ak loo xam ne dafa am dilaala xat'i ak dilaala zanniya loola ñu seet ci wut ci ay règle yoo xam ne dana tax ñu am benn euh, loo xam ne daan ci mën a d'accord lan d'accord nag mu boole nu ñëpp nu doon benn seen doon mel mbooloo xale yi Sénégal wala boog ñi ëpp ci ñoom doon menn mbooloo taxawu diine ji eh, eh, boole jullit ñi lii daal man moom laay woo eh, mbokk borom xam-xam yi nga xam ne ñoom laa dégg ñu waxtaan ci seen waxtaan yi métti ma lool métti ma lool kon nag lii daal moom laa ne woon dinaa ko wax su ngeen ko déggee te mu jub lillahi alhamd su ngeen ko déggee te mu dëng ngeen xam ne wax lu dëng taxu ma woon a jóg wax lu jubama tax a jóg waaye ngeen seet kon la jub waaye rek mu bañ a doon tàqalikoo ak féewoo ndax tàqalikoo ak féewoo ma xam ngeen ne alquran da koo tere sunna sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam da koo tere wala takunu kalladina tafarraqu waxtalafu sa borom yàlla nee na bu leen dem mukk di mel ne ñi nga xam ne dañoo tàqalikoo wuute te gannaaw bu leen ay firnde yu wóor dikkalee ba nepp lañ ko def kon nag mbokki jullit yi yéen borom xam-xam yi yéen jeunesse su Sénégal yéen salafit yi yéen suufis yi maa ngi leen di woo ngeen xoolaat tasaaroo gu metti gii nu nekke ngeen xoolaat diina ji ni mu soxlaa seen potentialité yu bari yi ngeen tasaare ngeen xoolaat jullit ñi ni leen soxlaa ngeen yërëm ñu ngir yàlla waxtaan waxtaan wu leen mën a bennle wala mu jege leen du ngeen mën a ànd yëkkateendoo dóorandoo ndax nu mën a gën a liggéeyal diine ji lii daal man moom laa doon woote maa ngi koy wax ñëpp képp ko dégg na ma ko jottali ko ko déggut in uridu illa al islaaha mastataatu wa ma tawfiqiya illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu